rupture bi diggante Macky Sall ak kii di Aminata Touré nekk na lu leer ci ndaje ak taskatu xibaar yi ki fi nekkoon njiitu conseil économique social et environnemental amul benn yoon bu mu tudd njiitu réew mi ci discours bi mu doon def muy xamal ni tamit léppam ci biir réew mi la ko amee te mu fas yéene delloo njukkal lii di Sénégal. sama liggéey ci senegal ak liggéeyal senegal ah danaa ko continuer yal na yéex ba keroog ba fiy jóge ndax nag loolu laa ameel suma réew. loolu mooy li nga xam ne moom laa ameel suma réew mooy ak fu ma mun a ne muy poste pas poste mooy ma liggéeyal sama réew ba Sénégal ni ñu ko xamee ci pays boo xam ne li tubaab naan pay avant-gardiste ci démocratie maanaam ñu ràññee ñu ci wàllu démocratie ràññee ñu te loolu bu yàgg ba tey foo wax Sénégal vraiment nit ñi dinañ taxaw déglu loolu nag dinañ ci continuer dugal suñu loxo ba suñu way bu rafet boobu continuer li jëm ci taxawaayam ci wàllu politique Aminata Touré nee na nekkul lu mu fas yéene bàyyi muy jox sénégalais yii rek di daje fii ak fan yu néew. xam naa ne nag ku ci ne ban ngaa laaj question politique waaye daf dul béréb bi ndax république dañ koy séparer ak politique man loolu laa xam fii du ma wax politique fii ci béréb bi nga xam ne mooy conseil économique et social waaye ni ngeen ma xamee xam ngeen ne Aminata Touré dana wax ak yenn ci politique. inshallah ci dir bu gàtt. ci walu keur gi mu doon jité Aminata Touré dafa dal di rafetlu liggéey bi mu fa def mu and ci ak collaborateur yi muy xamal ni amul dara luñ ko mëna topé ci walu nu mu téyee keur gi. rew mi limu laaj moy aussi ku ci ne nga duggal sa xalaat voilà ci ni muy doxé du rek ki nga xamné mo jang jàng ñi nga xamné ñi aussi ña ngay liggéey amna ñu expérience kon loolu yépp mo dajaloo fi ci conseil bi kon conseil économique social et environnemental. dafa di lu ama am solo euh, te war fee nekk euh, li ñu ci mënoon a def def nañu ko ak engagement ak transparence ak probité kooku dañu mës a jiital ci liggéey woo xam ne moom la ñuy def ak fu ñu ti dem voilà fu ñu mën a dem parce que yàgg na noo liggéey ah ba ñu fay jógee it gërëm nañu sant ñu ah fii def nañ fi naka ni noonu àddina nag day continuer wàllu gestion la mos a def euh, te loolay continuer voilà ku nekkoon premier ministre vraiment ah euh, def zéro zéro faute def naa boo ñëwee ci wàllu gestion warul doon a problème donc euh, franchement ci côté woowu amul sax lu nuyu discuter voilà ndax fa may daan liggéeyee mhm. foofu moo xam ne fii xaalis dañ koy jël rek di ci foyee mhm. dégam foofu laa am zéro kon mhm. eh, bu amoon conseil économique social et environnemental nekk na euh, cérémonie boo xamante ne amul benn xumbute ñoo ngi ko amal ci ñàkk teewaay kii di sa Seck mi war a wuutu Aminata Touré mi jëbal kayit yi laata muy dugg wotom